nataal ñaar fukk ak benn yeesu na wër si te jël li réeroon yeesu ñëwul jël si nit ñoo xamante ne dañoo foog ne dañoo baax ndax moom mooy musalkatu bàkkaarkat yi te ñu nangu ne dañoo réer kan moo réer yàlla nee na ñépp a réer góor yépp jigéen yépp ak xale yépp ñun ñépp dañoo juddu ci bàkkaar ba ñun ñépp a sori yàlla ba war na ñoo daan ñun ñépp réer ñun tamit dañoo réer ndaxte ñun ñépp ay bàkkaarkat lañu ndax bàkkaar nga ndax mas nga wax lu jubut ndax mas nga xalaat lu bon ñun ñépp def nañ loolu lépp ak yeneen ak yeneen yu bon kon ay bàkkaarkat lañu ñun ñépp ba ñun ñépp réer nañu xibaar bu baax bi mooy yàlla bëggul kenn réer te xibaar bu baax bi mooy yàlla bëggatul ñu réer looloo tax mu yónni yeesu mu wër ñu ba jot ñu yeesu daf ñoo bëgg a musal ñun ñépp daf laa bëgg a musal yow man ak ñépp yàllaa ngi lay gis te mënoo ko làqu ci benn boor du rëccu say bàkkaar rekk moo la ciy génne waaye nga tuub ko déddu ko balu ko ci turu borom bi yéesu te du doon rekk yenn ci say bàkkaar waaye lépp bu ci gëna tuuti sax bu ko xeeb ndaxte ci bant bi la yeesu feye suñuy bàkkaar ñun ñépp te ci bant boobu la yéesu tuure deretam ndax ñu am baalum bàkkaar yéesu defal na la lépp ci bant bi ñëwal wuyu ci yéesu léegi foofu nga nekk mën nga wax ak moom mooy yàlla mooy musalkat bi tomoo moo dekki mu ngi lay xool sax boo ko mënuta gis mu ngi lay déglu te mën nga wax ak moom borom bi maa ngi lay sant ci li nga ñëw ndax nga musal ma jërëjëf ci li nga joxe sa dund ci bant ba ngir man maa ngi lay baalu sama baakaar yépp te nga faral ma leen bëgg naa la dimbali ma to def ci man bànneex bi ma lay toppe defal ci man li nga bëgg amiin maa ngi dégg sa baat bu teey boobu maa ngi ñëw ci yeesu maa ngi ñëw yow musalkat bi sang ma ak sa deret bu sell boobu yéesu buuru buur yi mi dee ngir man dama bëgg a dee ci yow ci bant ba borom bi yéesu amin